de vos ministres, dont le brillant ministre de l'Éducation nationale ici présent, ainsi que vos directeurs généraux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. Vous avez osé en 100 jours, on l'a dit ici, prendre des mesures que les Sénégalais attendaient depuis des années. Dans un, contexte de hausse des prix généralisée, L'inflation est généralisée. Vous avez diminué les prix. L'excellent économiste Mamadou Lamine Diallo l'a dit tout à l'heure. Ça été un véritable tour de force que de pouvoir réduire les produits de première nécessité. Vous avez tout de suite mis le holà à la bamboula foncière qui sévit dans le pays depuis quelque temps en mettant un coup de frein à Mbour et en regardant de très près tout ce qui se passe sur le littoral. Vous avez effectivement révisé les licences de pêche. Nous avons, il faut se le rappeler, dans notre pays, plus d'un million de personnes qui vivent des produits de la pêche. Lorsque l'on parle de la pêche, c'est entre un million et 4 millions de Sénégalais qui en vivent au quotidien. Et nous savons que beaucoup de nos accords doivent être révisés. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous et vos gouvernements, nous vous encourageons à l'occasion de ces 100 jours. Nous, vous, nous sommes derrière vous. Nous sommes à vos côtés pour que vous osiez davantage accomplir ce changement que tous les Sénégalais attendent. Vous entendrez beaucoup d'oiseaux de mauvais augure, c'est leur lot du moment, parce qu'ils ont été défaits. Ils ont été défaits. Un candidat du pouvoir défait dès le premier tour, on ne l'a jamais vu depuis au Sénégal. C'est un véritable tour de force que vous avez le Président, en étant tour à 54%. Cela veut dire que vous avez les Sénégalais les Sénégalais qui vous ont élus il y a juste trois mois. Quoi que dans les radios, wolof nee na am na foo xam ne boo fa jaareek njulli foog nga bàyyi ko mu kasag loolu nag mooy li ñuy dégg kon li nga xam ne moom laa bëgg wax fii mooy wax ak suñu ndaw ñi defe naa ne artiste bi fi jóge sànq wane na ko la jeunesse sénégalaise sans cette jeunesse sénégalaise il n'y aurait pas eu de changement il faut le dire et le répéter vous êtes une jeunesse courageuse une jeunesse qui a versé de son sang des filles des jeunes garçons mais également des adultes vos pères, de, vos pères, vos mères que nous sommes, le Sénégalais a fait bloc pour ce changement-là. C'est pourquoi il faudra que vous restiez ici avec nous. Nous ne voulons plus de ces pirogues de la mort qui aujourd'hui sèment la désolation et la souffrance dans nos familles. Si vous vous êtes battus pour faire passer le régime, mais vous devez rester ici avec nous pour construire le pays. C'est le message, je crois, que Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vous a adressé. C'est le message que vous adresse son Premier ministre Ousmane Sonko en étant sur le terrain. Ces ministres, tous les jours, ils sèment l'espoir que vous devez récolter un jour ici avec nous. Mais pour que cet espoir se réalise, il va falloir que nous, les Sénégalais également, nous mettions la main à la pâte. Et c'est l'occasion aussi de lancer un, homme, un appel aux les femmes n'en parlons pas defe naa ne jigéenu Sénégal seen njàmbarte kenn lam-lamewu ko boo duggee ci car rapide yi exemple boobu laay joxe di ko joxewaat bu 5 heures du matin jotee ñaari góor ñooy nekk ci car rapide bi muy chauffeur bi ak coxeur ña ca des ñëpp ay jigéen la doon ñii wàcc marché Castor ñii wàcc ca tefes ga bu ko defee bu 11h jotee ñu jël si dépense yóbbu ko ci kër yi parce que nag jigéenu Sénégal loolu xam mooy jàppale seen borom kër jàppale seen njaboot. kon bu fekkee ne da ngeen ànd ak seeni doom ba ñu réaliser le changement tey la ñu war a gën a yokk yaakaar bi nii ma ko waxee pour la jeunesse ndega saalika pour la les femmes sénégalaises dans la solidarité ñu bàyyi wax ju sew ji sunu biir doon benn ci biir groupement yi jiital liggéey ndax liggéey rek am solo jiital liggéey bàyyi wax ju sew ji bàyyi activité politicienne yi nga xam ne dina am ñoo xam ne ñii dana ñu bëgg a ñëw yóbbu leen ci bu ko defee ñu ànd aussi ak nos artisans nos vaillants artisans tout le monde connaît le label sénégalais ici et dans la diaspora j'en profite pour saluer notre vaillante diaspora bu du loon yéen it ñaaw parce liggéey liggéey ci changement bi defe naa ne ñëpp xam nañu ko les artisans dont le talent est discuté partout dans le monde defe naa ne aussi président Bassirou Diomaye Faye ci 100 jours am yi il a indiqué la voie fi nga xam ne foofu la bëgg a yóbbu le label sénégalais mais également les travailleurs du secteur informel madame la présidente de la conférence des leaders wax na ko pour que ñoom it ñu mën a ànd seen liggéey gën a barkeel. mais nag aussi ñu ci waxtaan ñuy waxtaan parce que changement nag ala kulli alin foog mu am lu ci xaw a metti loolu lañ koy war a nangu waaye di ko waxtaane ndax aussi discipline dafa am solo ci réew nañu ci ànd waxtaan ci toog xam ne xëy na fii la ñu mën a jaayee waaye fii nag kenn mënu fee jaay ndax oto fii jaar ak yu ni mel ñu am un consensus national jàppale nos leaders qui ont été vaillamment élus par les Sénégalais encore une fois à 54 pour cent. Il faudra, il faudra que notre coalition soit également porteuse de ce message-là partout maanaam ñu wàcc à la base waxtaan ak tous les acteurs les acteurs économiques les commerçants li nga xam ne nag mooy li sunu dirigeants yi bëgg a def ñu partager ko ñoom que nous soyons aussi des facilitateurs ndax ni ma ko waxee changement bu amee. il faut mu xaw a am ay ñagas-ñagas waaye ñun ñoo war a sol suñu dàll dem seet na la ñuy aplanir les situations noonu la ñu mën a jàppale aussi notre gouvernement que nous avons élu et enfin saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel kenn du bàyyi ay politiciens yoo xam ne dañ leen dóor a dóor a dóor ba ñu war a ko ñuy wax di wax rek man de en tant que politique xaw ba loolu fu nu waxee loo xam ne lii méngoowul ak chiffre méngoowul ak réalité danoo war a dem ci télé bi ak ci plateau yi weddi ko ba mu set wecc wax sénégalais yi nag lii may def kooku suñu rôle en tant que coalition pour que aussi vraiment la contre-propagande ne prospère pas parce que nag dañu nekk ci réew moo xam ne soxla yi bëri nañ voilà askan wi bëgg na changement mu gaaw kon bu fekkee ne nit ki day ñëw di surfer sur des souffrances que eux-mêmes aussi ont contribué à créer ñu toog rek kon du baax kon loolu it euh, ci li nga xam ne euh, mooy sunu euh, sunu contribution bëggoon nañ ko ci indi waaye nag surtout message bu félicitation la en tant que membre de la coalition ancien superviseur général de l'élection bi nga xam ne ci la ñu falee président Bassirou Diomaye fay am nañu contenté ak fierté surtout nag bu fekkee ne à l'international dañuy recevoir ay témoignages élogieux ci taxawaayu suñu président de la république dañ la naan ah oui mais he looks young but he's so good that's what we're hearing lii la wax ne ñu dey vraiment dañu am une une surprise parce que defoon nañ ne jeunesse parce que nag on n'a pas l'habitude aussi en Afrique nous sommes des sociétés de gérontocrates maanaam foog waa ji yor mbaxane voilà barbe bi weex nga soog ne mooy waa ji mais parfois nag c'est pas le cas on a eu et on a un jeune président dont nous pouvons être très fiers du point de vue de sa posture du point de vue de l'incarnation de sa fonction mu ànd ci ak son premier ministre et nous saluons ici cette amitié qu'il nous faudra nous aussi protéger elle est très importante ñu fexee ba bant bale du jaar seen diggante ndax nag am na opposition boo xam ne son seul programme mooy nañu féewuloo loolu du ñu ko permettre ñu nit ñu fexe ba symbiose am li nga xam ne noonu la ñu ànde woon te ñu nii ñëpp kat fekkeewu ko ci ñu continuer ko ànd bu ko defee programme mu Sénégal am impact sur les populations Sénégal mën a dem kanam ñu nit suñu coalition incha allah ñuy ñaan mu ànd aussi question bi ñëwoon na ñu ànd législative ànd législative gagné.

Euh, J'aimerais donner à présent la parole à M. Moustapha Mamba Girassi, ministre de l'Éducation nationale, membre de la conférence des leaders. sant sunu borom bu baax ci dajewu tey bi di féliciter madame la présidente Aïda Mbodj féliciter leader yi ko accompagner pour organisation daje bi ñi nekk ci présidium bi di leen sant leen gërëm bu baax madame le premier ministre mon ami frère Cheikh Bamba Dièye honorable député Mamadou Lamine jàlloo ku ñuy teeru fii tey ji organiser lii yëpp muy mon ami mon frère Biagui et le vaillant combattant le grand combattant sànq sëñ Baara mi ngi koy rappelé maître Moussa Diop wante ku leen liim liim nga ñépp ñi nekk ci salle bi su doon sagoo suma sagoo kenn ku nekk ci yéen dinaa ko tudd ndaxte waxte wax nañ ko fii sànq metti woon na c'était pas aisé wante kenn ku nekk ci yéen am mbooloo ci ginnaawam noon yenn saay demal boppam